asalaamaaleykum wa rahmatulah chers internautes maa ngi leen di nuyu di leen ziare di leen jaajëfal si ànd bi ngeen di ànd ak ñun di wax ni namoon namoon nañ leen lool nag xaw a gëj lool sax si réseau yi waaw ndax euh, suñu formation yi dafa ubbi du coup day xaw a intense lool de notre côté mais nag dinañ ñëw ndànk-ndànk ba jëlaat suñu rythme. donc ñu daal di fi jotoon traité li nga xamante ni mooy dernière vidéo bi ñu publié woon nga xam da doon wax si euh, lan mooy traumatisme ak naka la ñuy xamee ni am nañ traumatisme wala nous sommes traumatisés. donc ñuy ñëw ci solution pour traumatisme euh, traumatisme nag euh, suñu wax ci solution yi dañuy wax ni euh, déjà am na ay nit yu résilient nit ñoo xam ni seen cursus de vie yóbbu na leen si à travers seen expérience expériences yi ñu dund ñu dem ba yenn situation yi leen traumatisé woon bi ñu nekkee xale jàng nañu ba daal di koy faj ba nga xamante ni defatul ci ñoom benn impact ce n'est plus benn sujet boo xam ni daf leen di affecté seen quotidien wala dafay affecté seen dund kon loolu aussi chance la boo xamante ni du ñëpp ñoo ko am parce que y a des personnes très résilientes y a des personnes yoo xam ne aussi dañu très fragiles ba nga xam ne bu leen dara dalee et ils ont du mal pour sauter le cap pour changer li nga xamante ni tey mooy euh, seen situation il faut que ñu de l'aide donc mun nañu wax ni tey euh, traumatisme ñan ñoo koy faj psychologue ak psychiatre mu leer Euh, du coach du je ne sais pas qui mais psychologue ak psychiatre dinañ ñëw après parce que lu tax mooy euh, traumatisme dafa nekk feebar boo xam ne dafa ancré wu feebar neurologique la bu ancré wu au fin fond euh, de notre mun nañ ne subconscient mu nekk loo xamante ni il faut que les habilités et les outils très très très pertinents pour mën ko solutionner kon ñu gis ni euh, en général ñu amee traumatisme dañuy souffrir li nga xam moom la ñuy wax stress post traumatique te stress euh, post traumatique boobu bokk na ci technique yi nga xam ne moom lañ ko mën a fajee aussi mooy li nga xamante ni tey mooy euh, technique. mooy technique gu EMDR xamante ni technique la boo xamante ni dafay dimbali patient bi pour ce que mu mën a def li nga xamante ni moom la ñuy wax traitement comportemental et et nga xam ne dafay dimbali patient bi à que mu daal technique la boo xam ne dafay dimbali patient bi pour mu mën a changer sa mode de pensée mën a dé déshabilité li nga xamante ni tey mooy ancrage bi nekkoon ci subconscient bi ngir mën fa remplacer li nga xam ne mooy des nouvelle croyances yu koy dimbali à que li mu jotoon dundu ko affecté. ba tey am na ñoo xamante ni dañuy euh, conseil aussi li nga xam ne mooy hypnose wala sophrologie. vu que nekkul loo xam ne man en tant que musulman euh, gëstu naa ci ba xam ndax lu dagan la am dagalul mënuma ko digal kenn parce que xaw ma est-ce que lu suñu diine nangu la ou pas euh, donc pour ñi nga xamante ni dañu dañuy koy faj dañ koy digle aussi mais man mënuma ko def mënuma ko mënuma ko conseiller à personne parce que il faut vérifier si c'est compatible avec notre religion ou bokk na si aussi nit ki su xasee ba def thérapie comportementale cognitive euh, nga xamante ni wala EMDR bi nga xam nit ki dem na ba nga xamante ni wér na et que mu ngi sentir que ni vraiment mu ngi am amélioration pour bañ a sombrer pour bañ a euh, des ci li nga xam ni mooy traumatisme boobu wala gaaw a duggaat ci yeneen situation dépressive nit kooku nag bu boobaa après mën na def li nga xam ne tey mooy développement personnel euh, def li nga xam ne aussi mooy euh, suivi boo xamante ni ak coach bu koy dimbali à ce que mu mën a fortifier personnalité parce que tey comme ni ñu ko waxee développement personnel du ñëw faj trouble yi wala wala euh, li nga xamante ni mooy traumatisme yi mais après nga faj ko mun na ñëw euh, ancré la ba nga xamante ni dëgëral la ba nga xam ne doo ci sombre moo tax tey nit bi am développement personnel gaawul tombé ci dépression amul fragilité émotionnelle parce que am na li nga xam ne tey mooy gestion des émotions bu pratique am na aussi li nga xam mooy gestion de son humeur nit la boo xamante ni donc am na poigne li nga xam ne mooy jukkoom kon nit la bu mën a euh, entre guillemets gestionner boppam ba nga xam ni amatul fragilité boobu di ko gaaw a daanuloo si traumatisme wala di ko gaaw a daanuloo si li nga xamante ni tey mooy dépression wala yenn problème comportemental yi du coup euh, loolu bokk na ci li nga xamante ni mën na dëgëral nit li nga xam ne nag ñun en tant que jullit comme ni ma koy faral di waxee tout le temps dañu war di basé wu ci li nga xamante ni mooy suñu diine parce que balaa dara di xew ñaata nit ñoo dund traumatisme tey à travers seen diine ñu faj ko parce que tey nit ki euh, traumatisme mode de pensée la en fait mode de pensée boo xam ne daf lay euh, dafay ancré au subconscient di la conditionné te yow yëgoon ni sax lii ma dundoon moo a impacté à tel point ba sama comportement changé léegi nag soo commencé gis comportement yooyu nga xam ne neexul par exemple nit bi nga xam ne dafa dem ba am phobie parce que dundoon na accident mu am phobie oto wala phobie ci li mu def accident nit boobu à chaque fois tey muy jàng alxuraan di wàqilu si yàlla di delluwaat si yàlla di bàyyi xel que ni yàlla mooy reye di accepter que ni lii ko daloon ndogal la te bu ko ci yàlla na moon jël bakkanam da ci jël bakkanam te aussi am na ñoo xam ne ñu ngi am accident deewuñu sax mais ñu nga may ay donc nit ki euh, à travers tafsir yooyu muy déglu alxuraan bi muy déglu déglu aussi li nga xam mooy histoire des prophètes aussi diineem di def ay muslaayam di julli respecté diineem kooku mën na dem ba li nekkoon subconscient woom ancrage boobu dañ à travers uniquement la spiritualité muy suñu diine à travers gëm-gëm bi mu am si un bon fo une bonne fois ancré boo xamante ni gëm-gëm bu ancré bu dëgër boo xam ne à travers ci diineem kon loolu suñ ko bàyyee xel rek kon mën nañu gis ni kon traumatisme balaa ngay dem fenn euh, comme ni ñu ko xamee suñu diine mën na ko faj waaw li nga xam ne aussi mooy ñi nga xam dañooy dañuy def roqeetul charia nga xam dañuy def mocc ci islam nga xam ne alxuraan rek la ñuy utiliser utiliser wuñu saafara utiliser wuñu téere utiliser wuñu njabar le fait que tamit euh, ñuy jàng alxuraan ci sa nopp di la ko ëf yow it ngay jàng alxuraan nga gëm ko aussi mu nekk looy pratiquer nekk looy dund nekk sa quotidien doo xëy suba nga jot dégluwoo alxuraan liiroo alxuraan euh, di def aussi say muslaay loolu yëpp mën na la dimbali ba sa traumatisme boobu daal di parce que lu tax mooy gis nga seytaan yi dafay profité si suñu faiblesse suñu moment de faiblesse seytaan yi day profité si bu ñu nekkee si état émotionnel bu fragile par exemple nga mer nekk en colère seytaan di ci profité dugg la mën na la créer benn colère bu excessif ba nga def loo bëggul woon def nga nekk ci ay phase ci sa dund yoo xam da nga dépressif yaa ngi commencé déprimé wu di jooy nekk en faiblesse seytaan mën na ci prox ndollu tey gën a yokk feebar boobu jox la yeneen symptômes yoo xam ne sax ça n'avait rien à voir ak sa maladie maladie cicatrique gi aussi seytaan yi dañ ciy poroxndool dañ ciy dugg yokk ko volume moo waral tout le temps euh, da ngay gis ni nit ki dañuy wax ni même bu fekkente ni tey yaa ngi traité sa bopp si développement personnel wala yaa xam ci psychiatre wala psychologue sa diine jëlaat ko sa diine gënal jege sa borom gënal defar sa jukko gënal defar sa pas-pas muy ngëm-ngëm sa tawxiit sellal sa ngëm yàlla ba nga xam ne doo gëm yàlla ak ak ak ak doo gëm doone yàlla ak lii wala ci diwlaa lii wala ci non non non yàlla kase kott dong bu foofu dëgëree rek après lépp loo xamante ne li yàlla suñu borom di wax mooy seytaane rusam lu faible la amul benn impact bu démesuré si ñun bu ko amoon kon àddina bi lépp jaxasoo c'est juste que ñun ñoo faible parce que ñun ñoo bàyyi li ñu yàlla digaloon mais bu ñu toppee ci lu ñu yàlla digal ñu ancré wu si dëgër si am ci benn dévotion diine comme il se doit waaye weñ bi moom toppee na moom boorodi <laughs> pratiquer suñu diine comme il se doit bu boobaa dañuy gis ne seytaane amul benn impact bu ngande bi nga xam ne loolu la ñu jàpp kon nañu gën a delluwaat suñu boroom gën a sellal suñu rox sellal suñuy jëf sellal aussi suñu pas-pas ak suñuy xalaatin am ay njort bu rafet ci yàlla comme ni ko yàlla suñu borom waxee yàlla li nga njort si moom boo demee ci moom ca lool nga fay fekk te boo deewee nga njort yàlla dalay bëggal yàlla dalay bëggal boo deewee nga njort yàlla dalay baal yàlla dalay baal kon sa njort na rafet déjà fii si àddina si sa jëflante ak nit ñi ci yàlla suñu borom euh, sa wërsëg si lépp mais boo naan waaye yàlla est du yàlla daf may mbugal man est yàlla bañu ma lii nekkul punition lii est-ce que nangam tout ci ndogalu yàlla gi dafa négatif kooku lu négatif rek moo lay dal boo changé nag sa mode de pensée nga xam ne nag yàlla wàccee lu fi pour mbugal la mais daf la wàccee pour nga dund ay expérience à travers expérience yooyu am na yu douloureux yoo xam ne xëy na yow kese mënoo ko jéggi am ku lay accompagner ci médecine wala si wàllum sa diine ba nga gën a dëgër boobaa nag euh, jëla sa bopp en charge nga commencé égoïste tuuti tal sa bopp tal sa santé mentale te xam ni xel dafa cher. na yàlla suñu borom li tax mu togg ñu jëf maanaam li tax mu di ñu juger mooy xel. ndax tey ku amul xel kenn du la jugé lépp wàcc na la julli wàcc na la woor wàcc na la tey boo demee ba dof dàqali ko sa sago te yàlla du la jugé parce que xam na ni euh, yàgg xale yéen a yem amoo raison kon raison bi tax yàlla di la jugé raison bi tax nga am euh, pouvoir choisir pouvoir libre arbitre raison boobu danga ko war a sàmm parce que dafa cher kon mbokk yi lii rek lañ leen indi woon di wax asalaamaaleykum wa ba temps yi incha allah